Euh, Serigne kër si moo doon wax ni gàmmu ndax mooy sama fatxu makka. mooy fatxu makkam. ndax fatxu ndax ndar la juddoo. li tax li ko juddalee ndar nag moom moo revendiqué appartenance am appartenance Saint-Louisienne am. moo ko bind ni wa innani qad kuntu min ahli ndari. wa maskani biha la daari andari. isnaani arbauna qul zaaka al adad. li numarati daari isa rumtal madad. kon moom moo revendiqué appartenance saint-louisienne waaye la ko jiitu mooy yàlla mu fa indi waajuram Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick bi mu dikkee ndar lu ko jiitu ci moom itam dogalu yàlla bi nga xamante ni moo tàbb ci nitu diine yépp mhm. nga xamante ni képp koo xam ne doxal nga diine histoire boobu korole na ak jëfa jëfandiku boobu mm-hmm. ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne bi ko soxna xadijatu gisee mm. mu ànd ak maysara ñu di ko liggéeyal mm-hmm. mu gis ko gis jikko yi nekk ci moom ak leer yi nekk ci moom mm-hmm. ni kii ku ma ko may ma sëy sëyal ko donte moom moo nekk patronam jaayanteeg moom ci mission diine bi nga xamante ni moom la nekk ba diine ak ak ba jur doomam yépp ku dul sayyiduna ibrahim rek xadijatu moo la jur jaayanteeg moom ci wàllu ci wàllu diine jooju financé ci alal ba si El Hadj Malick radiyallahu wax nañu sax ni bi fi Xadija jógee. amul xusnu la ko tuddee. Ah, waaw waaw amul xusnu atum njàqare. Mhm. loolu nag di rogalaat. Mhm. parce que benn mission bi la. Mhm. ba yàlla dogal bàyyi Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu maam Ousmane. yàlla indi ko mu doon dox gaaya di wut wàllu xam-xam ci dara El Hadj Malick Sow ba dajeek. soxna Fawade Wele. Mhm. soxna Fawade Wele nekk ndeyu daara ci xaaj alxaaji malik saw mhm. ba kooku tamit jaayanteeg moom ci wàllu yàlla ba ñu am ci Seydi Xaaji Malick. loolu moo indiwaat si Sëriñ Baaba Seydi Xaaji Malick. Mhm. ndar ba soxna Roqaya Njaay mi ko jur. nga xamante ni Saint-Louisienne pure la. ndax dégg nañ ci Sëriñ Abdou Aziz Alamine mu ni ndar la gane àddina. moom Sëriñ Babacar Si ba ci juróom ñaari maamam yi jur ndeyam ndar lañu ñu gane àddina loolu nag. yàlla dogal soxna Roqee Njaay jaayanteeg Seydil Hadji Malick jaayante goo xamante ni président Abdou ko léegi jaayante googu nag moom moo ko may mu jaayante góoru yàlla googu ni ku ko may kii mu sëyal ko nga xamante ni la mu ko ca njëkkeelee mooy li Abdou li président Abdou wax léegi muy ni ko yàlla mooy sa njëkke yàlla jooju nag Seydil Hadji Malick njaboot gi ko yàlla boole loon sa guddi mm. bi ko yàlla booleek soxna Roqaya Njaay ci néegu sëy mhm. daana am lu mu leen dénk ni leen de ko def ci wàllu yàlla ki ci jiitu mooy taawu taalibeem muy maam alxaaji Malick Sarr mhm. am na awraad yu ko Seydi alxaaji Malick joxoon ni ko de leen ñaanal Roqaya Njaay mu am njaboot gu barkeel ci ñaan yooyu mu doon def nag ak askar yeeg awraad yi yàlla dogal nag bés mhm. mu tëdd guddi gént leer gu bàyyi ko ci biiru soxna Roqaya Njaay jëm utali asamaan ba mu xëyee mu waxtaan ceeg Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick nangu la mu wax ñu def ci wàllu ñaan def ci wàllu dog ba yàlla may ko njaboot gi mu ko ci may muy taawam soxna Fatimatu si di taawam Sidi Ahmed si di Serigne Babacar si mi leen ñetteel Serigne Babacar nag gane àddina euh, di ndar ndar di njabootu ndar màggee fa passé fa jeunesse am yëpp waaye mu nekk jeunesse bu nga xamante ni yéesul genn nekkin ndax lu tax muy yéesul genn nekkin hmm. mooy yàlla dogal na lépp loo xamante ni tiir la hmm. walla gàkk-gàkk la hmm. dund na ci ndar googu ba xëy di xut bu jamonoom te mosu ko topp ci jamono ak ndaw ku ne xam na ndaw ni mu mel enfantillage saa di nga def yëfu ndaw sëriñ Babacar mosul jaar ci ndaw loolu yàlla dogal na léppam nag doore ci Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick moo ko jàngal ginnaaw bi mu ko joxee góor gi Mor Xuja si mhm. mu jàngal ko alquran bi ko moo alxaaji Mor Xuja si jàngal alquran bu mu dellusiwaat ci loxo si laxaaji Malik musu cee génn ba mu xëy di ngënk li mu doon mhm. yóbbu na ko ci si laxaaji Malik bi fi tubaab yi nekkee ci jamono rek ndax temps bi duñu ko may mhm. wax na bi ñu ko wax ci njàngum tubaab mu ni kër mi sax bu ñu ma ko laajoon ma jox leen ko ndax jiitu naa leen ci moom Serigne Babacar loolu mu ko yóbbu bi muy nekk ndaw. doon liggéey ci wàllu ci ci ci wàllu administration bi. doon liggéey ndar di postier di liggéey ci poste bi. loolu yëpp nag mu daje moo tax Serigne Cheikh wax ko ni ko tey laajal ndar kan mooy Serigne Babacar. ne booy laaj ndar nag bul laaj bala ngay dem ci nit ñi da ngay laaj jawwu ndar. boo laajee jawwu ndar da nga koy laaj ndax Serigne Babacar mas na def. lenn loo xam ne danañ ko fa danañ ko fa xeebee. mu yaxal ko ni alima ala xayril jazirati innaha ra'at qabla xutbal yawmi fii mahdihi tifla ndax ndar moom moo gis sëriñ Babacar nekk ci berceau moom ndar nee na ba xëy di ngënku jamonom te mosu faa def luñ koy xeebe ra'at fi abi bakirin sabiyan mu mannaan fa lamma xawaa ashiratan ra'at tiflahu shibla mu ni wa in adraka al ashrina fa huwa waliyuha sarairahu tabni lahu l qawl wal fi'la loolu nga mën koo dégg ci li nga xamante ni mooy ni sëriñ Babacar nekkee dundee ko ci wàllu ndar ci noonu ci noonu beneen bi mooy li nga xamante ni mooy ci li nga wax ci wàllu organisation mag gàmmu gàmmu gi parce que alxaaji mbay doon di dafa résumé ci benn way wax ni ñu ngi ñaanal jam ay yandar waaw fii la Maodo sampoon kër mhm. tal fi diina jur na fi gor mhm. gor yu baax yi fekki ko allahu akbar mhm. loolu dafa résumé dafa résumé li nga xamante ni moom la Serigne Babacar doon ndax fii la Maodo sampoon kër muy Seydi Hadji Malick waaw tal fi diina ndax daaraam jafa la dooree jur na fi gor gor yu baax yi fekki ko mooy ñi nga xam ni am na leen moom Serigne Babacar si gannaaw Serigne Hadji Malick jàngale yor liggéey si Hadji Malick ba ñu fekk si waat ko ndar muy lii président doon tudd ni sëñ Babacar ma ko doon wax ni gàmmu ndar mhm. mooy sama fatxu Makka mhm. ndar nag ba mu fay nekk moom ku ñu waajal la sëriñ Babacar mhm. waajal nañ ko ci ñaan waajal nañ ko tamit ci wàllu ci wàllu yu bari ndax am na loo xam ni mag a ko ko dénk te loolu boo xoolee ci jëfandikoom daf ciy feeñ mag moo ko ne woon Babacar Euh, mag moom nag Serigne Abdou Aziz Alamine moo ñu ko nettali. moo wax ni am na benn bàjjenam boo xam ne mu tuddoon soxna biti loxo loolu la li lingoone mm-hmm. nga am ne si da jigéen ju fonkoon ay téere la. Mm-hmm. ba Seydil Hadji Malick daan na ko abbi sax ay téere. jigéen jooju ma ko noonu Babacar dafa am ñetti mbir yoo xam ne moom laa lay dénk. Mm-hmm. soo ko bàyyee xel bis boo demee ba nekk mag. xaw ma ndax dina ma fi fekk wala déet waaye su dee bàyyi nga ko xel sama xel dina dal ci yow. mu di ndar ji nga juddoo. maaseeg ndar yi. doomi ndar yi nga xam ne yàgg leen gis ñuy say xarit ñuy ay nit ngay ànd ak ñoom mm-hmm. fexeel ba bu leen def def leen mbokk mm-hmm. waaye bu leen def xarit mm-hmm. bu leen def tamit compagnonnage ndax bu ñu la sa dox dem ci yàlla day yéex mu ni ko na fexe itam ba jigéenu ndar ñi bu ñu la miin ndax bu ñu la miinee sa dox dem ci yàlla day yéex kooku mi ngi koy jàngal fegu waaw fegu googu moo ko topp ba bi muy nekk xut bu jamonoom Serigne Babacar mosul janoog jigéen rido lañ daan doxali ci digganteem ak jigéen ñi mhm. fegu googu moo ko topp beneen bi itam mooy mu ni ko nanga fexe ba mhm. bu la butiku naaru faas yi miin mhm. ndax bu ñu la miinee danañu la lebal loo xam ni sa nekkin ci ndar dafay xat boobu mi ngi koy jàngal mu doylu loolu moo ko topp ba nga xamante ni tey bi mu demee moom Serigne Babacar Sy euh, Serigne Abdou Aziz Al Amin nettali nañu ni. kero bi nga xamante ni gouverneur Cornet Gentil. ñi ngi koy eh, eh, dañ ko organiser loon benn fête bu rëy. ngir war ko décorer moom sëriñ Babacar Sy. Serigne Abdou nee na mu nekk fête bu mag boo xamante ni lu nekk def nañ ko ci. nee yàlla dogal bi mu toogee nga xam ni table bi lu nekk teg nañ ko ci table bi. Mhm. serviteur bi ñëw tim ko ni ko waa góor gi. Mhm. góor gi ñemewul jël baaraam teg ko ci li ñuy lekk mhm. mu jël baaraamam rek di dóor ci taabal ji mhm. nee na serviteur bi ni ko góor gi lan moo tax ah yow teraanga yi yëpp yow yaa tax administration française def ko mhm. te yow lekkuloo mu ni ko déet sañu ma ko nag ndax xaw ma lekk gi àqu jàmburam ci àqu jàmburam ceeg déet àqu jooju di ma topp nee na bi mu paree li lay won ni sëriñ Serigne kër ku fegu la ku doylu la ndax itam nekk doy doylu googu mi ngi ko jilee ci wàllu diine am na ci waaye ngor yi mu doon jàngal yëpp mu ngi ko jëlee ci der gi nga xam ni ngor gi nga xam ni nàmp na ko ci ay maamam mm-hmm. loolu loo loolu loolu ci jataay boobu mm-hmm. France proposé nañ ko ni ko góor gi dañu bëggoon tey nga wax ñu loo bëgg France defal la ko mu ni ko man li ma bëgg mm-hmm. France amu ko Seydil Hadji Malick a ko am te ma ko koy laajee France du ko fekke fa mu ma koy joxee mhm. France du ko fekke allahu akbar mu ni ko ndax am nga oto Serigne Abdou nee na mu ni ko ndax am nga oto mhm. mu ni ko waaw am naa oto Serigne Abdou nee bi mu ñëwee bay sumi ay mbubam mhm. ma di ko wékkal ni ko ak ah, góor gi mënoon nga ko ni amuloo oto ndax bu boobaa ñun ñi ñu yow boo ci duggul sax ñun ñu ci du ci dugg mu ni ko déedéet ndax koo xamante ni am nga junni njaboot ku nekk yor oto ba booy génn ku ci nekk bëgg nga dugg ci otoom kooku daanaka boo amul oto yi du la wàññi dara. dëgg loolu fegu la. Mm-hmm. beneen bi mooy fegu gi nga xamante ni Serigne Babacar dimanche hors dimension la. Mm-hmm. ndax xamante ni rab sax rab. Mm-hmm. rab sax bu tooñee sëriñ Babacar xajootul ak loolu ngir sell. Serigne Abdou nettali na ni am na benn jamono benn couple bu jigéen France. may ko benn gàtt maanaam xar. xar ma nekk ca kër ga soxna asukan jël ko di ko traité di ko defar leen bëgg yépp ñu di ko defar yàlla dogal bës xar mi sëriñ bi xaw sëriñ Babacar xaw a dég dégmatal dégmatal rek ñu ni xar mi benn ndaw di jàmbat ni xar mi dafa lekk as tuut ci dugubam bi ñu ñëwee wax ko bi bi ñëwee sëriñ Babacar dafa dégg ñuy wax rek mu laajte ñu xaw ko ko nëbbu mu laaj ñu ni xar mi demoo ni mu ni déedéet yàlla dogal Serigne Babacar santaane ni nañu jël saaku dugub jox ko soxna si mhm. te as ndugubam la lekk ñu ne nañ ko jox saaku dugub jox ko soxna si mhm. daal di jël xar mi daal di leen jox instruction di leen xar mi de na ngeen fexe ba xar mi na génn kër gi te xar mi daf ko sopp parce que xar mi boobu leen beeg yëpp ni ko defe rek mais keroon la ni comme que xës na lekk lal yi fu jàmbur nag mhm. xajootul ak moom ci kër gi keroon la ñu ko génnee mu ne nañu jël lépp rendi ko tasaare ko te bu ci dara dugg ci biir kër gi. Mhm. pour wax la dimension boobu ci Serigne Babacar. Mhm. dimension xam-xamam. Mhm. dimension njubam. dimension teeyam. loolu ñëpp ku ko seedal. moo tax Serigne Cheikh daf ni yow yàlla constat bi ma def ci Serigne Babacar gis naa ne ñetti dimension yi. kenn fekk ko ci. moo tax ma lay ñaan dara bu mu rëcc. dimension xam-xamam. dimension njubam. dimension teeyam jud lii bi xayri xalifati mm-hmm. jud lii bihi mm-hmm. ñu ni ko ci lan mu ni wa bi ilmihi mm-hmm. wa bi rushdihi aw tibihi njub googu nag nga xamante ni moom li mu yor muy xilaafa Seydi Cheikh Ahmad Tijaani bi mu yor mënoo koo yor mukk di tooñ yàlla déedéet que xilaafa gi moom moo am virginité xilaafa gu jànq jànq la xilaafa la goo xamante ni silkul anbiya yonent bi moo incarné xaatim bi mhm. silkul awliya sidna cheikh moo incarné xaatim bi mhm. te ñoom ñaar ñëpp yonent bi bi muy yëg li mu doon mhm. boobu aadama defagul bàkkaar Seydi Cheikh bi muy yëg li mu doon boobu aadama defagul bàkkaar maanaam aadama lekkagul garab gi aadama aadama ñu ngi ko móol teg mooy wa aalama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasami qutbul wujudi alladi abda wilayatuhu rabbi wa aadam bayna almaai wa tiini kon kooku ki donnu risaala boobu du mën a nekk koo xamante ni ku ku ku ku ku tooñ yàlla dana nekk si kii déedéet mm. loolu moo nekk doxalinu Serigne Babacar mm-hmm. yàlla may ko nag loo xamante ni mooy may ko njub mm-hmm. may ko leer. Mhm. goo xamante ni mag ñëpp seedeel nañ ko. Mhm. yàlla may ko tamit dal. dal mu wuutu Seydil Hadji Malick. Mhm. nga xamante ni keroog ba nga xam ni Seydil Hadji yàlla dogal na mu joxanteeg moom rendez-vous ndax Seydil Hadji Malick da ko woni ko Babacar da ngaa mat ma mat. kon nag faw nga génn mu ni ko ndax ma dem ndar mu ni ko say bokk dañ faa ne ngir wan ko ni ko yow ndar nga dëkk te nit mënul liggéey ci biir bokkam mu ni kon ah ma dem cees mu ne ko cees dafa maa jege mu ne ko ma dem Louga mu ne ko Louga mag dafaa ne te damay bañ ngeen jote mu ne ko ma dem dakaar mu ni ko dakaar sama liggéey dafaa nekk te jóge fa mu ne ko ma dem Tëngéej mu ni ko Tëngéej baax na saa yu soxlaa Seydi saa yu soxla Seydi Hadji Malick dem demanteeg moom fa la liggéey li mu liggéey ci wàllu yàlla yu bëri ca la ko liggéey fa la defee xalwaam bu rëy boobu def mille cent treize jours yoo xam ne bu jullee bu jullee gee bala muy changé toogaay gee jot fajar xar sëriñ Babacar Sy muy fa mu jaar muy fi mu jaar moom sëriñ Babacar si ak taxawaayam ak taxawaay boobu nga xamante ni moom la ko yàlla may mm-hmm. yàlla dogal bés ba nga xamante ni euh, noonu muy dem di seeti Sénégal ba Seydi Hadji Malick bés woolu ko mm-hmm. mu jaar ci góor gi Xaadi Aline Dia ni ko dama waroon dem seeti góor gi Xaadi Aline Dia ni ko nag a ah, Babacar maa ngi leen ndokkeel ci sa xilaafa gi mu ni ko xilaafa mu ni ko déet nañ ñaanal ma rek mu ni ko ah ji Malick big dëgg gis naa ko ci gént muy yëkkati fukki mag nit ñi dama leen di jiital ndax damay bañ ñu xatal Babacar ci xilaafaam nee na mu ñaanal ñaananteeg moom ñu dem sidaaji Malick keroog mu ni ko waxtaan wi ma lay doyee mooy place bi ma toogee mhm. seeni borom sama gannaaw yow lañ ci yaakaar beneen bi ci topp mooy mhm. zawiya bële ca ndar mhm. sa alal la kon yàgg na ko junj ni ko ndar alalam la te nit du bàyyi alal mi te ba ma koy liggéey dama ko liggéey rek ci ndongo daara mm-hmm. te boobu doole ji demeewul noonu léegi nag dama bëggoon nga dem yeesali ko mm-hmm. mu boole kook ceerno alxaji Seydou Nourou mm-hmm. ah, beneen bi mu ni ko tamit dafa am ñaari téere yoo xam ne songu naa ko bii ci sharia bi mhm. muy kifayatu raghibin mhm. bii ci tariqa bi bii ci tariqa bi mhm. muy ifhamul munkirul jaani ñaari téere yooyu bu ñu yeggee sa zawee yegg ngeen wutal ma yóbbal ma bàyyee leen ak seen àddina waaye ci lii ñuy dëgmal mooy li nga xamante ni moom la moom moom la ñuy dëgmal muy gàmmu ndar gi nga xamante ni dafa bokk ci liggéeyam ndax liggéeyam mi ngi door ginnaaw bi fi Seydi Hadji Malick jógee ci en 1922. Mhm. waaye feeñalul dara ci liggéey. Mhm. boobu mi ngi càmbar di jàmbat di xool li nga xam ni moom la fi Seydi Hadji Malick bàyyi. Mhm. ba 1927 mu sos daayiratul kiram. waaye taxul sax 1927 mu feeñal dara ndax mi ngi officialiser liggéeyam. en 1930 bi mu leen convoqué ngir kat pare na ci tarbiya bi mu loon dina defal. nga gis ni foofu def na fa sew sew bu yéeme. parce que boobu daf ko seexaleeg xasidaam bu bu rëy. boo xamante ni muy hëlmin sabilin nga xamante ni mu 1930 mi ngi fas yéene feeñal woote liggéey bi nga xam ne mu ngi ko naalal tariqa bi. Mm-hmm. mu def ci liggéey boo xamante ni ci wàllu hëlmen sabili mm-hmm. bind ko ci muy cinquante cinq bayit mm-hmm. muy mujjibu ah, waaw mag ñi mag ñi wuyu si ko ci nga xam ni boo nee hëlmen sabili hël kubéer gi ak nun gamu daanoo sax cinquante cinq la lépp korole Cheikh al mu sos mag ñi mag ñi fekk si ko ci en 1930. 1930 mu génne xasida boobu. hëlmin sabilin boobu. ngir kat poser question boo xam ni wane na ni nit ñëpp kuy wuy si. ku yàlla am dënk wuy si. hëlmin sabilin ila salma bi yabrini. Ah, tawqu tiqaali ilayha kaana yabrini nga xamante ni. Mm. boo ni mu doortee xasida bi. Mm-hmm. hël hël kubéer la ak nun muy cinquante cinq bay di cinquante cinq bay li muy mujiibu ah, ñëpp wuy si ko ñëpp wuy si ko loolu nag moo korole ba ci li nga xam ne tey mhm. moo jur yii nga xamante ni moom lañ dëgmal nii muy gàmmu ndar gi nga xamante ni li président doon wax ci organisation bi nattale bi mhm. daf ko nat maanaam jam jamaaya bi koy organiser mhm. ak ki nga xam ne moom lañ koy defal muy Serigne Babacar Sy nga xamante ni gàmmu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mais Serigne Babacar Sy moom moo ko moom nga xamante ni ñi ko koy defal tamit mooy njaboot ga mu am ca ndar mhm. ak ñi nga xam ne ñooñu la am fudul ndar ci Dakar ak ci réew yi gox yi àdduna bi yëpp di ko wuy loolu nag moom la président Abdou doon indi ci organisation boobu nga xam ni noonu la takkee mag ñi tax sédd na sëriñ si comme ni ko président Abdou waxee mhm. sédd na sëriñ si mhm. sédd njaboot yi sédd ña mu dëkkal ca ndar nga xamante ne njabootu Seydi Aji Maalik nga fa njabootu boppam a nga fa njaboot yi nga xamante ay bokki boppam a nga fa ndax bokki boppam yooyu da leen a fonkoon lool bu ñu ko doon fekk si ci ndar xam na ni nit ñi niñ ko miine sax miinuñu affaireu sëriñ ak yooyu mais day artu ñëpp ni leen ah ñii di ñëw kat samay mbokk lan na ngeen ma leen fonkal bu ñu ma fekkee dóor tàpp reetaan na ngeen xam ni ay mbokk lañ yoo xam ni mbokk yu jege lañ mhm. nga xamante ni ñoom sax daan nañ ko woowee bu ñu du ñu jaar sax ci Babacar Sy ndax Bakar Sy rek lañ koy wax mhm. loolu yëpp ngir waaye du ca wax dara ngir fonk leen mhm. ngir tar njabootam ngir ngir jàpp leen ngir la nga xamante ni mooy ñooñu kat ñoo meññ ki gën a rëy ci moom muy wéy juróom soxna Roqaya Ndiaye te soxna Roqaya Ndiaye bokk ci ñi gën a kawe ci mission Cheikh Seydil Hadji Malick ci jaayante mu jaayante ak macha allah